tax mooy euh, mu Touré su waxee loolu wax ñaari wax su fekkee daf ne ñetti ñetti mandat la wax ñu def koy ut ma ne ko du dal mu ne ma ankay ma ne ko déedéet ci ba loolu la ñu teqale ko ñu delluwaat tegaat ci naan euh, daf ma digoon assemblée ak loolu loolu du ma ci wax. Mm-hmm. du ci wax wax ji yàqu la du ci wax. sax gis nañ njiitum réew mi tamit euh, woote euh, conseil de ministres maanaam mu ne dafa bëgg euh, def loi bi nga xamante ne mooy amnistie Karim Wade ak kii Khalifa Sall alors Sénégal yëpp am ñi nga xamante ni gisee nañ ko ne dafa bëgg benn jeu bi nga xamante ne maanaam pour ñoom ñu mën a wàcc jàmmarloo kii di Ousmane Sonko naka nga gisee loolu. waaw ñoom ñooy wax loolu waaye ñoom Khalifa Sall moom ak ak Karim moom bëgg nañ ko. Mm-hmm. la waajo waxoon mm-hmm. dañuy dem benn politique. projet bi këpp seen kaw hmm. nit ñi ne bàyyi leen ki ci suuf ngeen yëkkati ci kaw kii suuf ne xanaa dañ lay warul <laughs> dañ laa warul moo tax di ko wax hmm. waaye ñi ñi ñuy xaw ma nan hmm. ñooñu ñoom eh, bëgg nañ te kuy sénégalais bëgg nga ko nañ leen baal loolu loolu loolu Karim eh, Macky wax rafet na rafetlu naa ko parce que loolu moo gën a rafet waaw ñu jàmmaarloo ki nu mu tudd Ousmane sonk Ousmane Sonko bu waree doon président moo koy doon kenn mënu koo tee mm-hmm. ko doon doon du ko doon kenn mënu koo taxa doon mm-hmm. yàlla moo moo ne yaa ma'shara jinni wal insi in istata'tum an tanfuzoo min naqtaari samawati wal ardi fanfuzoo laa tanfuzuuna illaa mm-hmm. su nit ak jinni daje woon bëgg laa may benn mbir te yàlla d'accord ci doo ci jot suñ daje woon bëgg laa xañ benn mbir yàlla ne da ci jot da ci jot moo tax jarul son de boo seetloo euh, euh, président Macky Sall bi muy jël réew mi foogoon nga ko xam nga yëpp yéen ñëpp dégg ngeen oh, oh, oh. Mm-hmm. kenn foogu ko woon Ablaye bi muy jël réew mi foog ngeen ko deuxième tour la dem mm-hmm. keroog maa ngi mu ma mu fekk muy julliti sibaar mm-hmm. muy dem deuxième tour journaliste bi laaj ko ne ko waaw yow mm-hmm. euh, léegi loo ci xam mu ne mm-hmm. ku am benn carte sax demal sànni ko mm-hmm. benn carte rek bu ma ko rawee rek mën naa gañe réew mi far nekke mooy doon président gis nga yàlla ka muy kenn du ko foog dañuy ñaan nag waaye fa muy génnee ak ka muy génne kenn du ko foog moo tax jarul di mer jarul di xund jarul di def dara na def li mu war a def rek président nag moom loolu mu wax moom d'accord naa ci ah, naa ci de. c'est que yow sax seen amnistie boobu noonu. Mhm. maanaam dañ ne bu leen amnistie kii di xalifa Sall ak Karim Wade dañ leen toppee woon ne dañoo lekk alalu réew mi. Mhm. waaye bu leen amnistie maanaam tey bu ñu voté loi boobu noonu képp koo xamante ne peut-être jàpp nañ yow tam da nga lekkoon alalu réew mi dootuñ la toppee dara kon peut-être même njiiti réew mi su wàccee maanaam kenn ku ñëw nekk président du ko mën a toppee dara parce que euh, moom tam day bokk ci loi tax. affaire waaw waaw waaw ba tey rek ba tey rek waa dañ laa warul rek <laughs> dañ laa warul rek nga ñi war buñ leen bàyyee ñoom ñu sant yàlla. Khalifa Sall sonn na Karim Wade sa Karim Wade ñaata at nga ñëw Sénégal mm-hmm. xanaa fu sa bàyyi ne mm-hmm. nga bëgg faa dem. Mm-hmm. ñaata at a ngi ñëwul Sénégal Khalifa Sall ñaata at a ngi ak élection yi fi am yëpp mënul bokk ci dara waaye kooku kay moom bëgg nañ ñu def ñu def ko def ko noonu waa ki nga xam ne nag moom kenn waru ko kenn defu ko dara moom bu ko neexee ne nañ ko nañ ko nañ ko indi polémique polémique fii polémique bi jaru ko jaru ko na leen baal na woote conseil des ministres bu ko mënee def tey sax le premier na ko def conseil des ministres mu woote ko ñu daje ñu waxtaan mu baal leen baalaali ñëpp mu jeex loolu wàññi dara parce que nag gis nga yaa yor doole ji lu garaaw la yàlla dafa garaaw da lay jox dooleem ba pare di seetaan yàlla ku dangereux la dooleem la lay jox pare di la seetaan ba xam na nooy def su fekkee dangay jël doole ji nag di ci yërëm jaam mu yërëm la man lam yarhamin naas lam yarhamullah yonent bi nee na ku yërëmul nit ñi yàlla du la yërëm kon nag loolu moom ñoom ñoom ñi war daal nangu nañ ñu bàyyi leen waaye ñi ñu warul ñoo ne ci kaw suuf fiti rek naan xëcc leen fi ak du fi ak du faa fekk foofu foofu la conseil di ministres lay woote na ko woote su leen bàyyee mu bàyyi leen mu set ak keneen ku ci bokk ñu bàyyi ñëpp mooy bëgg kar nag xalaatu nit nag loolu dafa metti waaw kër <laughs> bëgg dafa métti bëgg ne woy lii muy def nangama tax lii muy def nangama tax lii muy def loolu daf lay dafa li nga ñaaw njort baaxul istani boo kasiran bi a zanni inna baada zanni ismun wala tajasasoo wala yaxtab baadukum baadan te yuxibu ahadukum an yakula laxma aqi mayitan fa kërhitumuhu yàlla nee na ñaaw njort boo koy def la di topp ku ñaaw njort du topp tiboo toppee rek gis te boo gisee danga wax te boo waxee lekk nga nit ki na loolu ba leen ko waaw ñaaw njort baaxul bu leen ñaaw yéen daal dee leen wax lu leen leer rek dee leen leer waaye bu leen ñaaw njort mukk président lii la ci jubloo président lii la ci jubloo président mu ko waaye daal ñi ñu war daal ñoom suñu sa ñoom ñu wàcc leen ñi ñu war daal nañ leen wàcc waaw ñi nga xam nag ñoom ñoo ne ci suuf di di tegg ñuy ware ah ñoom lu leen neex wax waaye loolu daal baax na xamul nu ko tubaab di waxee administration xam nga nag ah. euh, na ngeen ko yóbbu nag ci tiktok bi <laughs> maa leen gën a xam eh, loolu ah baax na bu ko defee ñu baal leen rek ah, loolu man ne d'accord naa ci d'accord naa ci cent pour cent wala mille pour cent sax d'accord naa ci mu baax leen mm-hmm. ñu dem ci terrain bi wuti ñoom ñëpp mm-hmm. nañ dem bon euh, Ousmane Sonko Karim Wade Ablaye euh, euh, Khalifa ñoom ñett duñ nekk président kenn lañ doon kenn rek lay doon suñ demee wuuti xanaa waaw léegi opposition suñu suñu suñu suñ suñu bañee kenn ànd ñoom ñëpp xanaa kon ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñu ànd buñ gañee kenn war na war na war nañu mën a taxaw nag su kenn gañee war nañoo mën a taxaw ci wetam jàppale ko ah bu fekkee opposition laa wax nag bu dëggu bu kenn gañee ña ca des war nañ koo mën a jàppale waaye buñ demee ba nag ñoom neen ñuy xëccoo ah kon jaratu ko ah jaratu opposition daal moom day day dañuy ànd euh, xeex kenn ku ñuy xeex nag bu daanoo ku toog rek ñu jàppale la. Mm-hmm. ok loolu mooy opposition waaye opposition boo xam ne. Euh, dañ naan woy dañoo bëgg a xeex Karim Wade wala dañoo bëgg a xeex Khalifa Sall ba dañoo bëgg a xeex Ousmane Sonko moo tax ñuy def nii def Macky Sall mënul fal kenn yàlla mooy fale allahuma malikal mulk tuuti mulk man tasha wa tansiwul mulk bi man tasha nee na maa moom nguur maa ko moom maa koy jox ku ma neex ku ma neex waxul ki leen neex ki leen neex waxu ko de ki ma neex bu ko doon jox ki ñu neex konoon Ousmane Tanor a koy jël wala ñas ñoo ñoo nekkoon ci kaw affaire bi waaye xooleen ñoom ñëpp la bale jox ko Macky Sall su doon jox ki ñu neex kon Ablaye Wade du ko jël waaye de ñëpp la bale jox ko Ablaye Wade bu doon jox ku ñu neex Abdou Diouf ndesit la am Senghor dafa desal jox ko mu wéyal ndesit ba mu jeexalee mu ñaanaat ñu may ko loolu àdduna dangay ngay demee xel ngeen bàyyi deme deme deme deme deme ñaaw njort ak xalaat yenn xalaat boo xam ne génnul sa néeg <laughs> doo ko xalaat xalaat dafay sori waaw dafay sori moom moo taxawaat pare ngir waaw moom de demee na xel ak demeewul xel daal na leen bàyyi rek moom daal demee na xel ak demeewul xel ak parce que kaay ma wax la nag gis nga réew mi dafa am lu fi ne ñaari ñi lay wër ñoo lay dugal mm-hmm. xaw ma xam ngeen comme déet ñaari ñi lay wër ñoo lay dugal ci kàmb soo demee ba ca biir nag ba yëg ne yaa ngi ci kàmm nga nga génn waaye mais du xalaatu Macky rek Macky rek xalaat rek jàpp Karim jàpp Khalifa Sall xalaatam moom rek du xalaatam. voilà day am ay conseil léegi nag boo demee ba ca biir ba nga yëg ne lii ma def kat du nii wala war naa leen a baal nag àq nga baal leen loolu mooy wàllu loolu mooy wàllu ngor. waaye nag du xalaatu boppam xalaatu boppam pour mu téye leen déedéet xalaatu ñeneen nag. oustaz man dama lay nuyu dèjà di la yàlla may la wér yàlla suturaal la parce que comme li ko sama naataango waxee muy bokkar yow sagu réew mi nga. ñu ne ñaanal yàlla may suñu la gis nag suñu tiital ndax benn kàddu boo wax rek am na lu muy def si yow. comme nag ku mel noonu da lay ñaanal toujours yàlla bàyyi la fi. fu may ñëwee nag mooy dëkk bi dafa doon dëkk bu doy waar fu mu toll nii parents yi ñu ngi jooy tey bu boo def boo jëndee dara boo ñëwee suba ñu yokkaat ko dèjà nguur gi war na si jox tey matuwaay ndax dund gi métti na dund gi yokku na am na ñi nga xamante ne seen salaire weesuwul cinquante mille te dund ñu ngi dund loo xamante ni fu mu toll nii ñëpp a ngi yomb tey sa kàddu ak la nga si war a wax ba ki nga xamante ni tey mi ngi am salaire cinquante mille wala dund dund bu mu loolu laa sa waaw xam nga sëriñ kër Si radiyallaahu anhu danaan wax ne lu cher amul loo amul njëgam moo cher nañuy ñaan yàlla rek luy yokk yokk ñu am luñ ko jëndee waaye nag xam nga euh, féete ca ker ga bàyyi nit ñi ci naaj wi bokkul ci xel